Madrid muy jeex ab défenseur centrale loolee danañ ci dikk du yàgg Barcelone gu nërmel waat encore une fois loolee jafe-jafe yi mu ngi commencé accumulé wu ñu sant leen gërëm leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam merengue yi ñu ngi leen di nuyu di leen béggee bu baax a baax di leen ziar catalan yi tamit daanaka ay célibataire ñoo ci ëpp ni ma koy waxee ñu kontaan ci ñoom encore une fois béggee ki la nga xam ne tamit mooy El Hadji Mbaye nekk ca côté Kaolack ndax moom champion la ñu diglu sponsor bu mag bi di gars yi ginnaaw bi ngeen dabarñee la nekkoon ci sunuy magasin ci Taïba Taïba yi ci wàllu karo conteneur ya wàccaat na ngeen gis ko noonee mu nekk karo yoo xam ne gars yi yu mucc ayib la karo boo yaakaar ne ci adduna wala ngal kàpp amu fa boo demee gars yi danañ la ko tegal ci taabal ji yéen ñi seen liggéey pare mën ngeen a coppati ndànk karo yi karo yi mucc na ayib gars yi karo yi damay taxaw da gis sama bopp jërul may wut seetu bu may dox ci kaw a suuf fépp lay dabbar ñi sama bopp loolee tamit nekk mbégte ci képp koo xam ne bëgg nga tabax bu rafet di fàttali daanaka tabaxkat yu mag yi nga xam ne diwaanu Thiès ak ñi ko wër ñun la ñu jox confiance moo tax ñun bagage yu wér te wóor lamp yaag lépp wàcc na ci li nga xam ne mooy place yooyee gars yi robinet yi nga xam ne moo xew léegi da ngay teg sa loxo ci suuf mu mel ni courant ndox mi wàcc ndànk-ndànk gars yi sponsor bu mag bi ma nga noonee moo leen di may xibaar yi ginnaaw sponsor bu mag boobee ak yi mbiram yoo xam ne indi na ko di kenkaay général ngeen dem doxant fokk wala ngeen woo ko téléphone ay mbiram yomb na lool car masha Allah buum barcelone daa nak ci mundo la mu xamle mooy dañoo nërmeluwaat ñetti bal ci ñaar ab américain lañ doon dajal match boobee nag ngeen gis ko taxawaay bi nga xam ne gone catalan yi am nañ ci jafe-jafe yi fi nii mi ngi continuer euh, s'accumuler wu maanaam mi ngi bari ci li nga xam ni loolee nag du match boo xam ni bu ñu ganee waa perte la mais nag match amical la waaye tamit football la te daanaka 22 heures ñoo doon nekk ci terrain bi euh, di ko jaxase première ligue bi nga xam ne daanaka ñoom it ñu ngi ñëw di gondaandaat lank kandaare ci li nga xam ni Euh, moo nekk euh, loole euh, prontre na presse ak i gaayam teg mu nekk super ligue boo xam ni jur na ay jafe-jafe loole danañ ci dikkaat ci xët woo xam ni spécial lañ koy def ngir ngeen mën ci am yeneen information yoo xam ni yu wóor a wóor la bilan Barcelone tamit danañ ci dikk tamit moomee lu yaatoo yaatu ndax bilan boobee daanaka dana gàll guuse diggante euh, at mi daanaka ba mu xaajee ba tey jii ba saison bi commencé ñaata victoire ñaata ndam ak nu nu mën a taxawee ba équipe boobu gën a tegu ci temps Pep Guardiola moom it ngeen gis ko ñu ne ko nga ci sport ca dëkkam Barcelone ñuy xamle ni moom moomee pour la première fois euh, ci histoire am mu gagné mondial des clubs ak Manchester City. loole coppati na ko bu baax a baax ndax City daanaka fi toon ni soxla woon na ak piix ci yaramam yaram nag mel na ni ko sangoo ndox mu sedd fiix na car macha allah Real mi ngi wër ab défenseur centrale waaye loole dañ koy sori ñëw ci Naples mi nga xam ni fi mu toll ni daanaka joxe na loxo ngir mën a bokk ci loolee nga xam ne mooy Super League maanaam Naples pare na cinq sur cinq ànd ak Barcelone Real Madrid ngir ñu bokk procès boobee daal di koy dóor mu daanu rajaxe ko. bi tamit ñëw na ci eh, ndam lu yaatu li Manchester City am. di bu njëkk boo xam ne daanaka ci histoire football city seen loole mi ngi koy am muy ab final boo xam ni coupe du monde de club ñi ko xamul mooy continent bu ci ne club ba fa jël li leen di seenub euh, euh, championnat wala seenub euh, li nga xam ni moo nekk ligue des champions loolee lañu coppate dajale ko nag muy daanaka juróomi équipe séngam juróomi continent moo am bu ma jumul loolee la jël ni ko téll daal di koy fëteex mu am solo bu baax a baax stade yëglekaay moom yëglekaay boobee ñëw na ci ilimaani attaquant yi ak kii la nga xam ne mooy Izo Ismaïla Sarr ak Papa Gueye nga xam ne daanaka fi mu toll nii Angleterre ba tey ñu ngi leen di jonguru ci wetu Pape mata Sarr bu ko defee ñu mën faa doxal loolee bu ngeen ci àndee ci commentaire yi yéen ñi seetaan revue de presse ba mu ngeen wax waaw bu fekkee dangeen a bëgg ñu continuer fi newoon di téll télle ka rajax rajax xamul fu jëm ngeen wax tamit joxe ci seen xalaat waaye li gën tama xalaat ko mooy ñoom ñoo ñee war na noo barastiku jóge foofee ca France ndax amalatu leen benn njariñ seen niveau romb na ko te footballatun faaletul leen ndax loolee dina am solo bu baax a baax yeneen information ci kanam jërë ngeen jëf maximum de partage et abonné ci